njaayam watal la ca aju dafa bari la mu ëmb dafa bari liñ ci def itam dafa yaatu te ku nekk ngi ci. métier bi yombul yombul mais nak lu mu doon rek soo góorgóorloo teg ko ci jub teg ko ci fi mu war a tege rek xam li ngay bëgg ak li ngay bañ xam jaxasoog yow ak loolu daal su loolu yàlla dimbalee ba nga teg ko ci voie boobu doo am benn problème incha allah. jaay oto

affaire yi moom métier boo gis rek comme li ma la wax au début métier boo gis rek am na foo xam ne boo ko fa tegee rek yàlla dimbali la. fii ma nekk tey ci Sénégal damay jënd oto Canada dama koy jënd Amérique dama koy jënd faneen des fois ci confiance boobu rek waxuma la sax avant ngay ñëw Sénégal ci biir bitim réew fi nga koy jënd rek foofu rek ay risque la man joxe naa sama xaalis du benn di ñaari yoon ñu wan ma oto xaalis boobu mujjul fenn mënuma dagg billet di dem Amérique dem Canada tout le temps di régler problème yooyu dañuy lekk foofu sa xaalis. nga koy muñ ki nekk Canada mënuma la plainte fu ma lay fu may jaar dèjà loolu rek problème la ñu lekk sa xaalis foofu bon wala yàlla dimbali la oto bi rëcc nga jënd ko mu agsi ci poor bi dèjà rek avant muy agsi rek problème la comme yow tey damay jaay oto dal na ma yow ma wan la oto boo xam ne jënd naa ko Canada nga gis oto bi mu neex la nga ñëw joxe avance oto boobu man dañ ma ko jëndal dugal naa xaalis et ma enquête sa xaalis di xaar oto bi départul des fois nga gis si ñoo xam ils ont des problèmes parce que dañuy jël xaalisu jàmbur bu ci faj soxla alors que dañ la koy jox pour nga mutel leen en fait waaw li nga ciy am néew te doylu soo ci doyloo rek yàlla mun na la dimbale. liggéey moom boo gis am na ay risques am na ay problèmes mais boo ko tegee fi nga ko war a teg jaar fi nga war a jaar rek bon euh, du problème bi du métti trop c'est vrai que nag y a beaucoup de contraintes euh, yiñ ciy mën am. par rapport ak les clients par rapport ak les courtiers par rapport ak auto yi ci sen bop ak la douane service des mines ainsi de suite mais loolu mok liguey bi ñoo and ñu ngi koy gérer quoi. jaay jaaykatu woto yi nak di faral di jankontel ay problème yu bari jafé jafé yi yu ci ëpp fi yu ñuy yu ñuy am moy yéex kayit kayit yi yéex mu genn parce que système bi c'est au ralenti bu Europe la mën nga jënd auto légui ñu def ko à ton nom légui ngay taxaw service des mines ñu defaral la sa sa keuyit nga jël sa auto dem xam auto bobu du am problème parce que auto bu amé problème du du transféré wu ci yow mais fi da ngay tok yeen saa nga tok 2 3 mois sax so nga xamné carte grise ba sax au fond transfert ba réeral nako parce que dossier bi doko am am copie rek ngay am les dossiers originaux dañuy dem directement au niveau de la douane c'est la douane qui les transfère au niveau des services des mines donc yow do ci am mainmise problème balanka xam deug nga war a dem miite oto bi nga jaay oto bi ba pare <laughs> encaissé sa xaalis war a dem miite ji nag ci naan la noo carte grise bi dafa réer voilà. naa oto yoo xam ne man kebe depuis avant tabaski fay naa douane bi ba léegi ñu ngi port te li ma war a fay fay naa ko dèjà li tax ñu teye ko port doo xam dañ naan la tey système gaynde bi moo paan trésor moo doxul loolu nag yow oto yi ñu ngi la may 10 jours te yow fay nga li nga war a fay 10 jours yooyu bu jeexe yaa ngi fay maa ngi finance te maa ngi si kenn du ko remboursé te pourtant ma ngi sénat bi ci ñom la parce que ñoo deful sen liggéey mais ñun amuñu fuñu ko joyé lolu dañuy jël sun propre moyen di fayat ma ngi sénat ci port problème bi mën ko dekk tol ben par ben depuis de auto bi di départ bof Sénégal le risque la te sa xaliss ngay yëkkati ya xam dang koy leb ya xam dang koy xam no koy def banki yi tout te banque bi la lebal xaliss mom xamul weer bi dee fay lo de xamul ne say auto ñi ngi port xamul ne sa xaalis triant nañ la ko Canada wala Amérique loolu yooyu yëpp da nga koy muñ di góorgóorlu doo am ak problème banque doo am ak problème même yow client bi nga xam ne ñëw nga jox ma sa xaalis di xaar sama oto bi nekk poor su ma ne laa mercredi bu mercredi passé xaalis dafa doy waar de da nga naa mais kebe mercredi jot na su ma lay wax wax douane doo déglu loolu. boo dee xool problème yi ñi gën a am ci oto yi mooy euh, les yi par exemple des fois di nga joxe oto def ci ay quelques mois de crédit. après y a des retards ak yooyu te xam nga aussi suñu secteur bi nekkul secteur boo xam ne dañuy am tous les possibilités des fois nous sommes accompagnés par la banque nous sommes accompagnés par euh, des bailleurs wala yu mel noonu donc loolu mooy ay problèmes yi nga xam ne mooy problème yi gën a am ci kii bi mais à part bon ma pour ma part man je trouve pas beaucoup de beaucoup de problèmes quoi sincèrement. jaay woote moom bu fekkente ne mënoon nanu ko tey. Euh, difficulté yi la ca bari dafa bari ndaxte léeg-léeg nga jënd sa oto ci à l'étranger indi ko fii mu nekk ci port bi yàlla du dogal li ngay fi bàyyeen jar nga war koo génne ci poor bi te yoroo liquidité boo ko génnee lu mu fa gën a yàgg mu gën a métti ci parce que da ngay fay magasinage léeg-léeg itam ñu jël oto fay ci douane dix million par exemple te buñ ko jaay duñ ci am un million. pourtant métier bii di njaayum oto bokk na ci métier créateur d'emploi fii ci biir réew secteur bi ñu nekk secteur création d'emploi la waaw on crée des emplois waaw dañu dañu nekk loo xam secteur boo xam ci économie bi dañ ciy participer bu baax a baax a baax waaw di ci créer tamit ay emplois waaw te xaaruñu état parce que nous sommes des entrepreneurs yoo xam ne suñu xaalis la ñuy jël di investir pour jàppale tamit euh, suñu bopp. jàppale tamit ci gouvernement bi ci wàllum liggéey waaw parce que daanaka euh, fii bërëb bi rek y' a plus de cinq emplois yoo xam ne direct la ak indirect indirect yi nag ñoo ëpp waaw parce que dañ fiy jaar tout temps di andi seen ay clients suñ jaayee tamit mun leen jàppale waaw ñu mun ci am ay revenu mun a jàppale seen tamit dal so xoolee njaay moo limu li mu ëmb dafa bari xoolal parking bi Lamp Fall li fi nekk ci oto léegi da ngaa fekk kuy monter ay pneu. kooku day jariñu ci njaayam wata l'électricien bi day ñëw di jariñu ci njaayam wata le tôlier day ñëw di jariñu ci njaayam wata le peintre day ñëw di jaay jariñu ci njaayam wata le vulgarisateur day ñëw di jariñu ci njaayam wata le gardien en personne day ñëw di jaay jariñu ci njaayam wata éclairage public itam da ci jariñu muy Senelec ndax fi nu nekk bi ñu fi nekkagut lu nekk fi nekkan ñu ñëw jël def ko éclairage bu mel nii jël ay gardien wut suñu caméra de de surveillance sauvegarder koñ bi ba képp ku fiy def surum noona doo fi mën a jaar te bin fi ñëwagut lu nekk fi nekkan mais fii ñi ciy dund te duñ ay employé sax ñoo ëpp employé soo xëyee suba ba ngoon sa téléphone courtier yi ñu ngi lay woo kebe am nga oto bi am nga oto bi courtier yooyu la ñoo ëpp emploi te courtier yooyu loolu la dund yor ci seeni i jabar yor ci seen i kër kon yow emploi rek nga xam mais li ciy dund ci douane di ci dund ci courtier di ci dund ci transfert yow xam nga trans yow lol nga xam débal mutation li ci dund ci mutation ci ñi la koy miital lépp jaayam auto lepp xaalis la moo tax mun nga jaay auto bi ne maa ko jëndelé amna ci 2 millions bo calculer defe ne sa 2 millions yi bénéfice non jamais 2 millions yoy bo moy tuul 1 million nga ci am wala 500000 moo tax ñi ci am problème yépp loolu lañ xamé wul li tax ñom jaay jaaykatu auto yi nak di sakku ci nguur gi mu gën leen taxawu. service des mines dañu wara considérer le ministre du transport daf ñu war considérer comme ni mu ko joxé les les les. les garages yu gëna mag yi noñu lañu ko wara joxé ñu am ay plaque garage bo xamné bu client ñëwé tey ngeen waxtaan ba ngeen jubo nga mëna jël plaque bi teg ko ci parabrise bi ngeen and essayer auto bi parce que client bi jënd auto il a droit à essayer la voiture donc lolu problème la mais euh, lolu dal lañuy ñaan gouvernement bi gën ñu bayyi xel secteur fi ñu nekk di fi liggéey aussi mu bayyi ñu fi ñu liggéey bon bu fekkente ne dañu gis que ni war nañ ko gën a mën a améliorer ñun am nañ ay possibilité d' améliorer noo nos nos bureaux d' améliorer le parking bi yooyu yëpp am nañ possibilité yi te loolu gouvernement bi bu ko bëggee mën nañ ko ànd ak moom. du ñu ne dañu war a mel ne Europe jox cër nit ñi foofu parce que Europe moom kiy jaay gerte ci mbedd mi sax vraiment day am valeur <laughs> duñ ne nañu mel comme Europe mais lu bon bon mën nañ ñu jox respect xam ne ñun ñu bëri ñoo topp suñu gannaaw d'ailleurs problème bii ñu am yow dégg nga ko. lolu ci rew ko xamne tay dafa yor ay employé di doxal rew bok ci ñi nga xamne tay ji minimum 15 personnes ñi ngi sa gannaaw yaakar an ci yow su sen jabar amé dom ñu yaakar nga ngentel tak jabar yaakar nga may ko lolu su nga franchement respect. ñu par rapport ak gars yi li fay ñu ci mënoon jàppale dina baax parce que ñun en fait kon dañuy gën a noppal par rapport ak clientèle yi parce que clientèle yi saa yu ñu lay wax waxu achat rek waxu daanaka mutation bi lañ lay wax dafa cher te loolu ndax ñu ko wàññil ci prix ci prix de vente bi daanaka. ak fi réew mi toll mu mel ni feebar bi di coronavirus dafa gën a taxawal seeni liggéey tax ba ñoom jaaykatu woto yi di sàkku si nguur gi mu gën leen taxaw ngir ñoŋal secteur bi fii si biir réew mi.